dañoo nattu jar nay ñaan mucc ci waaye jar ci nag dina tax nga xam ci nattu jar nay ñaan mucc ci waaye jar ci nag dina tax nga xam ci nattu dina tax nga ràññee say soppe mbaa say noon walla sax say altoppe nattu dina tax nga ràññee say soppe mbaa say noon walla sax say altoppe nattu dina tax nga ràññee say bañ mbaa say nit mbaa sax ñi lay foñ natt dina tax nga ràññee say bañ mbaa say nit mbaa sax ñi la foñ natt ku ci jaarul doo xam ñi la sopp ku ci jaar nag dinga xam ñi la topp natt ku ci jaarul doo xam ñi la sopp ku ci jaar nag di nga xam ñi la topp ku ne cocc dara jot la xamoo say soppe mbaa say noon mbaa sax say al toppe ku ne cocc dara jot la xamoo say soppe mbaa say noon mbaa sax say al toppee ku say nga tax nit ki topp la di la tagg ka yéem bum tax nga ne nit ki baax na ma ne ku say nga tax nit ki topp la di la tagg ka yéem bum tax nga ne nit ki baax na jamono jii ku yori teraanga doo xàmmee noon ba loo wax noonu la foo joxe itam foofa la jamono ji ku yori teraanga doo xàmmee noon la foo joxoñ foofa la loo wax it noona la ma ne ku say teraanga tax nit ñi wër la doo xàmmee noon xarit soppe ak altoppe bala ngaa xam ne nit a ñàkk ngor nga xëy am gontu ñàkk dañ lay wor bala ngaa xam ne nit a ñàkk ngor nga xëy am gontu ñàkk dañ lay wor bala ngaa xam ne nit ñàkk kóllëre nga ñàkkam xel mbaa nga yor tawat juy wàlle bala ngaa xam ne nag nit ñàkk kóllëre nga ñàkk xel mbaa nga yor tawat juy wàlle ma ne lii yépp boo ci jaarul doo xam àdduna naka la féeg yaa ngi ci kàttan ak man-man doo xam àdduna nan la àdduna kët ndekete nii la nit a raw weñ fu tooy mu dal fa ma ne àdduna tey ndekete nii la nit a raw weñ fu tooy rekk mu dal fa jaam ñi fi woon dañ leen ëppoon doole di leen jàpp jaam yi fi ne nag seeni xel lañu napp jaam ñi fi woon dañ leen ëppoon doole di leen jàpp jaam yi fi ne nag seeni xel lañu napp mbaa du jaam sax du ndono jikko la bu dul ba fi woon bii fi ne jikko la mbaa du jaam sax du dono jikko la bu dul ba fi woon bii fi ne day moom jikko la bu dee ndono kon ma ne daj na ndax ñi ëpp a yem koo wóolu mu wor la bu dee ndono itam kon ma ne daj na ndax ñi ëpp a yem koo wóolu mu wor la booy xool tey ñi ëppi jaam lañu koo lebal suukar mu fay la poobar ma ne booy xool tey ñi ëppi jaam lebal suukar mu la poobar kon nag jamono ji kuy tànnub xarit jërul sori jëlal sa xel ak sa xalaat kon jamono ji kuy tànnub xarit jërul sori jëlal sa xel ak sa xalaat bari na koy wóolu boox ko say wax ëllëg dig ba naqari muy siiwal say wax ma ne bari na koy wóolu ko say wax ëllëg dig muy siiwal say wax nattu daal dëgg-dëgg lu baax la ndax ku ci jaar ba jàll àdduna yee la nattu daal dëgg-dëgg lu baax la ndax ku ci jaar ba jàll àdduna yee la ku nattu dal ñépp ci say mbokk daw la ñeneen ñi ci des bala fu ñu toog jëw la am na ci ñooñ nag boo toogee ci ñoom ñu yërëm la waaye neskis kiis leen wanee ginnaaw ñu ree la ku nattu dal nag say soxna yeb la def la moroom foo waxee ñu tontu la ñenn ñi dootuñu la jàppe kilifa koo waxal mu wax mu fab xeeb la ku nattu dal nag ñu suul sa jëf yu baax ya jël bu bon ba foo waxee ñu tontu la ca ku nattu dal nag ñu suul sa jëf yu baax ya jël bu bon ba foo waxee ñu tontu la ca ku nattu dal nag say dëkkandoo jëw la bu dee bàkkaar ñuy wax ba gàddu ca ku nattu dal nag say dëkkandoo jëw la bu dee bàkkaar ñuy wax ba gàddu ca nattu tax na ñuy wax nit wax ju sew di ko tuumaal ba mu faf génnam réew nattu tax na ñuy wax nit wax ju sew di ko tuumaal ba mu faf génnam réew lu tax ñun nit ñi ñuy àttente te moo ne fàttente ku nekk am nga bis boobu yow rekk a xam te wolof nee na kat noppam ak boroom ku nekk am nga bis yow rekk a xam nee na kat noppam ak boroom xanaa yàlla mi ñu bind te amul kumpa ci nit kon nit ki warul di jéem a àtte nit nit ki warul di jéem a lañ bët nit ndax yàlla mi bind nit rekk a xam nit ma ne nit ki warul di jéem a lañ bët nit ndax yàlla mi bind nit rekk a xam nit ma ne ñun nit nañ maandu ci jëfi nit te bàyyee suñu borom nit moom mi bind nit takat li yàlla bind nit a ci waroon a gën waaye daa mel ne sax nit a ci gën a bon takkat li yàlla bind nit a ci waroon a gën waaye daa mel ne sax nit a ci gën a bon ñi ngi yàqante ci kaw suuf ñun nit ba soppeeku sax malaaka ñun nit ñi ngi faatante ci kaw suuf ñun nit ci làmmiñ mbaa ci paaka wala yat ñi ngi faatante ci kaw suuf ñun nit ci làmmiñ mbaa ci paaka wala yet mercredi le 4 9 mois 2013 Touba Mboussobé. léegi ràññee naa samay xarit léegi ràññee naa samay soppe léegi ràññee naa ñi ma bokkal.